ni li duuf ci nag bi xajul ci cin li te da nga nekk ci weeru koor te yaa ngi door jeexal li nga xam ne rek mooy sa tournage euh, te war nga am yeneen occupation euh, yoo xam ne yaa ngi ko a def euh, ci loolu bala ñuy jeexal ci kàddu li nga xam ni mooy peine de bi ñuy jaabaa jonge réew mi Kouthia il est pour ou bien contre je suis pour parce que yàlla moo ko bind mais yàlla moo ko bind Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam paix sax moom ci boppam tamit jàngal ni loolu gis nga nit ki yàlla bu ne def leen lii mooy solution nañ ko def màkk boo sàccee ñu dagg sa loxo boo jafaatee leen ñu daggaa sa tànk bu yàggee da nga xam parce que yàlla li mu bind moom moo lii yàlla bind ak li Macky Sall bëgg ça fait deux man li yàlla bëgg laay def <laughs> man li Macky bëgg du ma ko def yàlla lii la bëgg moom laay def yaa ngi dégg yàlla li mu bëgg moom la ñuy def man barki Seydou ñaanu ma ko yàlla mais bés bu nit defoon loo xam ne saafaan sama mbokk ma xam la même buñ ñu may rey après man dinaa dem def loolu par A ou par B parce que yàlla moo ne ku rey nit nañ la rey loolu nag bu ñu bëggee suñu réew yi jëriñu parce que mënumaa gëm na yow li yàlla santaane nga lànk bañ ko def ba pare boo amee problème dem umra ji war nga dem Màkka dem jublu si yàlla di ko ñaan te yàlla bu la santee dee nga bañ ko def boo nekkee njiitu réew yow ëllëg àlaaxira yaay ji responsabilité lii nga xam ne moo am yëpp kon nag pour éviter yàlla cautionné la ci lu négatif da ngay doxal yàlla santaane peine de mort boo demee ci bible bi war nga dem feneen ci lislaam ak chrétiens yi bu ñu joxee dialogue toog waxtaan loo lépp ñëpp vala gis valable mu valable la ku rey nit nañu la atte ci loolu rey la parce que ka rey bakkan la yor njaboot la yor lépp la yor da ngay gis koo xam ne benn doom rek lay am ñu rey ko àddunam tukki te toll na foo xam ne mënutul am doom mënutul am doom bu fi génnee àdduna kan mooy dem ci amee di ko ñaanal lii nag dafa neexu ci xol li yàlla moo ko santaane nañ ko def man lu yàlla wax loolu laay def lu gouvernement wax te yàlla wax safaan la safaan ba la yàlla santaane laay def bàyyi la nga xam ne gouvernement bi da koy protéger parce que tamit ay peine de mort yi état yi nga xam ne Nations Unies ay yooyu ay ay protocole d'accord ak ay affaires yooyu ñoo koy def rek ne lii ko buñ ko defee lii di fekk la ci Amérique bi nga xam ne dañ ne yàlla kenn la God is one dañoo reconnaître ne yàlla kenn la ba pare def peine de mort moo tax dañ yàgg raw xoolal dëkk yooyu rek dañuy raw am na dëkk yoo xam ne duñu dëkk 100 pour cent jullit mais reconnaître ne yàlla am na mooy su yàlla mu kenn la seen xaalis loolu ci bind God is one ku fa rey nit ñu def la peine de mort ñooñu sax ña ngay sàcc ci li nga xam ne moom la yàlla santaane ñu koy def te duñu ay julli 100 pour cent pourquoi pas nous les musulmans te ñu wax ne aussi fii lañ ko organisé te ñu ne fii la maam borom Touba nekk maam El Hadj nekk ku ci soxla politicien boo soxla falu dem Touba war nga dem Tiwaawan war nga dem Ndiassane te ñooñu toogaloon yàlla suñu borom fii ci li nga xam ne mooy sàmm l'islam lañ santaane yow nga ne doo ko def ba pare boo bëggee dara si ñoom dem def ko kon nag dañu delluwaat xel yi te xam ne tout ça sa règle lépp mu ngi ci kaamil mu ngi ci alxuraan yàlla yor nañu solution yi indi ñu lépp li nga xam ne moom mooy euh, li ñu bëgg suñu àddina bu ñu ko bëggee dund dund gu feex dëggantaan comme euh, malgré comme ni ñu koy waxee rek malgré nous sommes dans un pays laïque mais sa n'empêche que aussi tamit ku nekk joxe sa opinion euh, te dëgg rek mooy dëgg mooy jëkk te mooy mujj euh, ci loolu Kouthia laaj bi ñuy terminer rek mi ngi jëm ci li nga xam ni mooy par exemple Kouthia ak relation ak yenn maanaam kilifa yi ak yenn maanaam sénégalais yi ñu nekk ci dëkk bi ak ñu nekku ci dëkk bi ban fas ban relation la. ban façon relation la bu ñu bu ñu mën a wax. man daal vraiment maa ngi am relation ak homme de culture yi ak ñëpp mais euh, barke démb damay waxtaan ak Coumba Gawlo mu ne ma Kouthia man fii ak état Sénégal joxu la cër bi nga xam ne moom nga war a am te yelloo ko Abdou Diouf waroon ko def def ko ab Abdoulaye Wade waroon ko def def ko Macky Sall la toll ci pour def ko ba léegi defu ko ko faw ñu defal la ko parce que Kouthia légende nga. ni ñu sargalee Omar Pène mu def 30 ans de carrière wala keneen ñun dañoo judd maas yow génération fekk la fi ñu waxante dëgg ñun dañu cee yàgg depuis 1988 événement wu naar yi Kouthia ngi bëggal Sénégalais yi quotidiennement du jour au lendemain ba boo gisee Kouthia da nga yaakaar ne sa frère la parce que xamul ko waral parce que lundi yaa ngi gis Kouthia sa kër mardi Kouthia sa kër mercredi jeudi vendredi dimanche matin mu nekk lu quotidien yaa ngi dégg euh, boo nekkee sa kër yaay bàyyi fa sa yaay kese sa yaay bu taalee télé bi Kouthia lay wéttalu ko parce que mu ngi gis ne Kouthia mu koy benn temps nit ki nag bu fekkee ne bi muy nekk ci carrière am di def lu baax téel la sa population bañ leen heurté ci dara bañ leen woo ci violence bañ bu violence naree am mu génn def comédie ba wàcc ci ndox bu dëkk bi naree tàkk mu def comédie ba léegi loolu da koy woo parce que am na ñoo xam ne ñu ngi leen di jox ordre du mérite du lion wala ñu ngi leen di sargal ci ordre du lion du mérite te dëkkuñu ci réew mi ñu leen koy tappal te ñun ñu nekk ci réew mi di def loo xam ne ñun ñoo ko mérité Kumba Gawlo wax jooju mu wax nga xam ne dafa taxaw ne ma Kouthia danaa la défendre ba état yi xam ne ne yow ñun dañu war a jox dans les ñun dañu war a dund dund goo xam ne euh, euh, dañu dañu dañu dañu war a bégal état daf ñu war a bégal parce que ñun ñu ngi bégal ay doomu aadama en contrepartie loo xam ne Euh, buñ ñoom bu ñu ko defulee yàlla mu ñu koy defal ci sutura waaye nag dañ ko defal ci bu mu rafetee parce que ñu ngi koy jéggaane di ko defal ñoo xam ne du ma ne mérité wuñ ko mais ñun fi ñu jaar ba bégal sénégalais yi tey leen ñoom war nañoo ëlbati defal moo tax samay relation ak les hommes politiciens euh, jëm ci état ak nguur amul benn état bu mënoo ko sonné ne ku caa amee naa ko fi kër wala jox naa ko fi oto wala defal naa ko lii wala def naa ko lële ki ko njëkk def nag bu ko defee du lu muy bàkkoo parce que lu ko war la lu yéex la te ñu war koo dabu wala ñu def ko ci moment bi parce que c'est très important li du njaaroos waxoon rek maa ngi tëkku képp ko xam ne su ma fi jugee ëllëg nga defal ma loolu c'est parce que ngistal am na ñoo xam ne nag xëy na seen yéene moment bi bu ñu nekkoon ci nguur dañ ko def xëy na ëllëg bu ma fi jugee moom ñu toll ci loolu bu ñu ko defee loolu du du lu may lu may lu may naqarlu parce que xëy na bañ ca tollee bëggoon ko def ñoom nekk ñoom ci état pour def ko mais may wax ne dañ bàyyi xel ci loolu dimbali nit ñi di leen jàppale euh, pour ñu mën a sawar pour tey parce que tey pour nga bàyyi sa doom defi comédie il faut nga gis ne Kouthia réalisé na loo xam ne euh, da nga toog ne euh, damay bàyyi sama doom woy parce que Youssou Ndour am na ci way lii ak lële danaa bàyyi sama doom woy parce que Wally Seck am na lële danaa bàyyi sama doom defi comédie parce que Kouthia am na fi lii am na fi lële am na ñoo xam ne dañu naan waaw non non bu amulee dara moom moo passé passé moo foo ni mais cest à que condition yi ñuy jox musiciens yi ak respect bi ñuy jox musiciens yi bu ñu ko joxoon comédiens yi tey kon ñun dépassé fii parce que ñun non seulement on est des docteurs on soigne des maladies lu mel ne stress dañuy faj euh, stress dañuy dindi euh, euh, mer ak révolte boo xam ne ne Sénégalais dañ koy am des fois bu ñu toogee ñoom kese wéet nga fexe ba dindi loolu installé stabilisation ci biir ci biir xelam ak ci biir këram kon ñun on mérite vraiment ñu valoriser ñu jox ñu suñu ak ak suñu yelleef parce que on chaque jour comme des aide à la presse bi dañ ci war parce que li journal yi di wax journal yi di wax chaque jour ñu moom la ñuy relaté dans nos émissions pour def ko actualité en version humour kon état daf ñu war a subventionné jàppale ñu taxawuñu ci ay kër taxawuñu ci ay moyens mettre ñu dans des conditions yu baax message boobu la ma waxoon dama koy lancé ci mois de ramadan bi pour autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci culture ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñu géré nañu gëstu artistes comédiens nga xam ne nekk ci réew mi ak ñeneen homme de valeur yoo xam ne ñu ngi ci war leen teral war leen sutural yii rek moo fi indi yenn insécurité parce que am na loo xam ne boo ko war a def te defoo ko yàlla teg la ay coono yoo xam ne chaque jour nga jug ci di si defal ay moyens te doo ci am résultat. kon Kouthia depuis sa boo xam ne état Sénégal mën na ko génne. incroyable c'est la culture à part ay prix yoo xam ne dañ la koy joxal ay prix yoo am na ay micro door ay sédar. ay lii calebasse d'or ay yooyu nga xam ne des personnes ñoo koy créer ak seen ñoo jox la ko mais état Sénégal reconnaître ko te ku nekk ci carrière 88 da ngay compter 88 ba 2019 yaakaar naa ne war na passé 30 ans boo ki génnee 30 ans waaw man da lay wóor ne président Macky Sall bi mu xam Kouthia boobu mu ngi université war mu ngi nekk ci classe secondaire parce que tamit magante ñu du bëri <laughs> sama grand frère la d'accord mais ba tey moom carrière Kouthia fekk na ko mu nekk université war a man mos naa dem ci amical des mu nekk gérer ko fa mu xam ne ne ku ci ami kat yàgg naa ko seetaan yàgg naa ko bëggal kon il est temps man mettre ko jàppale ko jàppale bi mooy fexe ba valoriser ko émergence kay dafa nekk ci culture ci secteur yëpp culture sport mais boo jëlee ba jël 3 milliards du ko dugal ci sport pour 11 joueurs nga dem ñu dóor la defet nga ñëw nga perte sa milliards mais boo ko defee ci un homme de culture ci ay zom de lu ëpp vingt Sénégal gi fi nekk ci ay comédiens ëpp nañu cent boo ko doon jox sax mille comédiens dañ leen dimbali ci loo xam ne loolu parce que trois milliards du du du du xaalisu caaxaan mais nag boo ko defee ci vingt deux jours rek duma la bu la am dara lu naqari parce que fa nga ko waroon def defoo ko fa waaw man de je défie nag à autorité culturelle bu mën a taxaw ne Kouthia li muy wax nii na ñëw parce que décoré nañ ko fii jox nañ ko fi budget jox nañ ko fi subvention jox nañ fële ba mu fa taxaw war na mot léegi ay cinq ans su ma taxaw fay ko BSDA parce que dañu dul considéré sax kon koo xam ne yow euh, comme ko nekkoo waykat rek comédien nga nii rek dañu dul considéré si logique yooyu donc nag il faut que ñu valoriser waat encore ñi nga xam ne ñoom ñooy def culture ñun yàlla ñu yor rek mais du état moo taxaw te muñ ko defal ñoo xam ne mérité wuñ ko ay ambassadeur itinérant ñu ngi koy defal ñoo xam ne mënuñu sax xam nga xamuñu sax Sénégal ñaata région la ñaata département ñaata commune ñaata commune d'arrondissement ñoo fi fi génnee euh, que ça ne pas dans l'oreille d'un sourd voilà les autorités en parlant ñi nga xam ne ñoo observe ñoo seetaan euh, quelle soit seen position nañu bàyyi xel ci sa euh, yi nga xam moom moom moom nga wax nii waaw ci loolu Kouthia euh, sur le plan international jot nga fi dem def ay show à l'international ku mel ni France te ñoom dañ la jox gëdd jox la cër loolu noo ko dundee mais dem naa fi Canada dem fi France. def naa tournée yoo xam ne nag ay promoteurs individuels ñoo koy def ay promoteurs culturels mais boo fa demee da ngay gis ne ñoom spectacle boobu dina am ay sénégalais kat yu ñëw mais da ngay gis ñoo xam ne booy ñëw nañ lay xoolee ak nañ lay enquêté dañ lay bàyyi xel ak des chaînes de télévision bu mel ne CNN bi ma fi defee ci élection euh, Hillary Clinton ak euh, ak Donald Trump waa CNN déplacé nañu fi ñëw fi def reportage bu mag. waa Al Jazeera ñëw ci élection yu mujj nii bi ma nekkee candidat ñëw fi nii couvrir affaire boobu jox la valeur nga xam ne nit mooy nekk ca Al fa muy tàkkee woola na la yaa ngi toj télé bi maanaam lu xew ñu ne ma seen document yi la ñu wane war a nit nekk Amérique naan la Kouthia maa ngi seetaan CNN war a def na benn reportage bu mag ci man am na loo xam ne bu la ko sa dëpp xeebalee yeneen dëkk dinañ la jël en valeur ñu ngi nii di a boo xam ne dañoo ñëw Canada yi ñun dañ fa war a dem le juin bi jour Korité pour def spectacle bu mag Canada moom dama fa am date boo xam ne kon Youssou Ndour ni mu Bercy noonu laa fa amee date mooy le 4 avril bu nekk damay dem foofu gérer Sénégal yi nekk Canada donc mooy wane ne que ñun ñi ñu ñuy jox cër dañu woo mais c'est des spectacles privés yoo xam ne ay nit yu privé ñoo ko def te état bu fekkee ne da nga teg lu mel ne ministère des Sénégalais de l'extérieur wala ministère de la diaspora te diaspora bi ñu soxla loo xam ne da leen di bëggal war ngaa booy dem di leen nemmeeku nga yóbbaale un comédien war nga yóbbaale des artistes pour bëggal leen ñooñu ba pare balaa ngeen wax li nga xam ne mooy soxla il faut ñu ñuy utiliser état di ñu jàppale parce que bu fekkee da ngay xaar promoteur wala spectacle wala salaire fii yaakaar naa da nga bokk ci artistes yoo xam ne da nga te loolu rafetul il faut que jàpp ñu ministre de la culture mun a am ay budget milliards milliards te du ñu xam fan la milliards yooyu jaar ci li nga xam ne moom mooy artiste di développer ay film di si financer ay nga développer que ki jàppale ko rawatina ñi nga xam ne ñun on est des nit des yoo xam ne ñu capital immatériel ñun ñoo créer suñu bopp à l'appui de personnes yàlla moo ñu jàppale ñu demal avec nos propres moyens ba nit ñi xam ñu ñun dañoo war a jàppale pour wan ne y a des yoo xam ne ils se sont auto débrouillés débrouillés pour mun a doon tey leader ci li nga xam ne moom la ñu nekk ci secteur bi di comédie ak li nga xam ne moom mooy euh, euh, humour ba Sénégal ak le monde entier reconnaître ñu ko kon nag euh, vraiment Euh, bu ñu bëggee euh, émergence bu ñuy wax nii ci côté culture mu am il faut ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal euh, humour Sénégal ba ñu ba ñu ba ñu am ci tey notoriété internationale. tout à fait Kouthia laata ñu conclure rek bu ñu bëgg bu waxee tey si comédie ak théâtre ban différence nga ci observé. comédien bi mun na bañ a bokk ak humoriste bi parce que am na ñoo xam ne dañuy bëgg nekk humoriste mooy ki nga xam ne mun na def one man show pendant deux heures de temps lu mu wax du ci delluwaat te fu mu paree gars yi daanu. comédien bi mën na dem defi théâtre euh, ci troupe Soleil Levant wala Pod et Marichou wala yooyu ñooñu c'est des acteurs yoo xam ne dañuy jouer la rôle ñu delloo leen ko il faut mu am euh, dem ak njaay ak jóob ak jóob ak njaay comme ci foobal pour nga mën a génn li nga xam ne mooy talent kenn ki mais nit ki kese humoriste bi humoriste bi mooy Kouthia nga xam ne mun na taxaw deux heures temps di la reetaanloo ci loo xam ne actualité lay doon bu pare ci bii jàll ci bee bu pare ci bee jàll ci pendant deux heures de temps la man mun naa defi théâtre mën naa defi humour comédie kese mais am na ñoo xam ne tey li Kouthia di def ba doon ko naroon def loolu la problème tey boo jëloon un Sanekh wala nga jël un Jojo ne ko kaay nekk à la place Kouthia du dem mais bu jëloon Kouthia ne ko dama nga defal ma Sanekh dama koy def parce que dama commencé ci théâtre ba pare soo ko def li nga xam ne moom mooy individualité maanaam one man show mën naa ci yàlla dimbali mën naa ci ñaari boor yëpp te am nañ ci xam-xam yàgg nañ ci mais différence bi yaatu na mooy yow kese ci cundum seen ngay bégal ay plus de milliers de personnes te loo wax doo ci jaaraat loolu dafa jafe am ñoo xam ne balaa ñu koy mën il faut ñu nekk 4 a 5 ñu def ay sketch mais nag individuel One Man Show dafa jafe parce que bu fekkee ne da nga saturé ci kanam nit ñi rek loo tàmbali nit ñi xam ko dañ naan xam nga di lépp benn lépp boo xam ne balaa ngay jeexal nit ñi xam ne fu muy jeexee loolu amul sens te ñun problème boobu nañu am non comédien duñu changé dañuy nettali ay nit yoo xam ne dafa yàgg waaw dafa yàgg et puis dañuy wax loo xam ne tamit vraiment yow mi koy seetaan da ngay vexé wu ay waxu laalan affaire u taat affaire wu ay euh, homosexuel euh, loo xam ne vraiment du neex ci déggin wala da à l'aise ñi koy seetaan parce que mënoo ànd ak sa doom dem di seetaan benn spectacle boo xam ne dañ fay lépp lépp yoo xam ne on parle que de sexe ay lii ak lële wala ñuy wax loo xam ne ay benn gumba la nañu bàyyi di di lépp di acharné wu ci ay handicap bu nit gumba euh, handicap lafañ yooyu ay nit ñoo xam ne dañu am droit de rire kon ñëpp mais bul appuyer wu ci handicap bu jàmbur pour reetaan loo ay nit contre ñuy jouer di jël handicap am na benn comédien boo xam ne gis naa ko muy jël euh, loxom def ko kon ku am AVC di ci jouer mais ki am AVC day yàq day am complexe pour génn parce que bu génnee rek ni image boobu boo ko xalaatee comédien woon ay rey jàpp la te kooku da ko war a aider pour AVC boobu dañ ndax mën nga ko mën nga ko reetaan loo ba AVC dañ mais waroo jël handicapam di ci jouer pour jéem ko ridiculiser wala di ko benn dañu bàyyi di jouer ci ay handicap bu ay nit am benn gumba la woon benn lafañ la woon benn muuma la woon yaa benn tëx la woon te kooku yow sa soppe la mu ngi bëgg bëgg ci yow nga koy génnal handicapam te danga ko war a fàttaloo mu xam ne moom nit ñi ñoo égoo ci kanamu yàlla ñoo yem ci kanamu yàlla waaw ñuy appuyer ci seen inspiration naturelle di bañ a basé wu ci ay lislaam ay diine ay tarixa benn Baay Faal la benn tijaan la woon benn laayeen la woon yooyu dafa rafetul da nga koy dégg ci whatsapp bi benn murid la woon war a dee loolu mun na tàll ab réew mun ngaa maye diggante njaay ak jóob diggante mbeng ak faal diggante jeng ak ndooy ay kal ba génn ci lu neex ba ñëpp ree te doo tudd diine doo tudd alxuraan doo tudd handicap doo tudd dara comédien yi il faut ñu tàggaat leen encore pour ñu xam ne nit ki mun na reetaan loo nit ki te doo laal lépp loo xam ne dafay nekk euh, luy indi euh, euh, mer dëkk war merci beaucoup Kouthia mais Kouthia mais yow tey tey journaliste nga boo xam ne question yi ngay posé moo tax nga am lii ci man parce que boo fi nekkoon naan ma Kouthia yaa aay nan nga def ba mun Macky Sall ay Kouthia yaa taxee non Kouthia vraiment sa sanc bi rafet na ñaata jabar nga am yaa ngi wax loo xam ne tax permettre moom man ma génne lu tax bu ñu tënkee nga ne ma école nga parce que sa question moo pertinente samay réponse ñoo confirmer ko bu fekkoon nag ma fi laaj laaj yoo xam ne xiis mandat pour dëgg ndaar saay duñ fi jëlee dara te incha allah ragal naa ne ñiy déglu bu ñu xoolee commentaire yi il faut commenter juste li nga xam ne moom la niveau bi toll yow tamit dama lay remercier parce que fii nga nekk tey di laaj laaj yi euh, vraiment euh, mérité nga tamit dugg ci li nga xam ne moom mooy rédaction centrale parce que tamit tey euh, lii ngay def nii dafa am solo am na ay journalistes yoo xam ne ils se réclament journaliste nekk ci ay rédaction wala nekk ci groupe de presse xam ne wóor na yàlla yonent bi question yi duñ ko xalaat bu ñu demee am invité artiste leen nañuy laaj foo dëkk noo commencé ñaata jël nga am li ngay def ndax neex na <laughs> ku jaay lii lii kër pare la jeex na waaw moo tax léegi koo gis mu yor micro rek na nga xool bu baax waaw ñu bëri dañuy yor micro xam ñu dama amoon sama benn xarit boo xam ne dafa yoroon fan sa club euh, wal fajir doon woote ci rajo yi ma xëy benn jour taal site benn site internet gis ko muy posé question ma ne ko yow léegi la nag mu ne ma journaliste ma ne ko bul ma yeb de mu ne ma bilaay wan ma carte journaliste am may toog di reetaan mu ne ma looy ree <laughs> mu ne ma bul ma siyol bàyyil noonu mu jàll te jaaykatu bisaab bu mag la woon sa Sandaga te turam sax bu ko doon bind pour ñaan dédicace maa ko doon <laughs> kon yéen tamit seen métier bi nii la ñu xàmmee les vrais journalistes parce que tu as posé des questions pertinentes là où tu dois poser des questions vraiment maa ngi remercier ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di yox seen site internet bi yàlla ko yàlla yëkkati bu mu nekk nag site boo xam ne day nekk groupe de presse bu am doole waaw. Mm-hmm. merci Sénégal 7 ak 7 bi 7 loo ca xalaat. 7 mooy juróom-ñaar lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche donc 7 la pour nga mën a wax ak nit ñi il faut nga 7. boo njaaloo ba pare pour yàlla nangu sa jaamu yàlla il faut nga sangu set yaa ngi dégg juróom-ñaari asamaan ngay dégg mosoo dégg juróom-ñetti asamaan set chiffre la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, bu mystique la moom chiffre la boo xam ne yàlla na wuyoog li nga xam ne moom ngeen turee seen euh, Sénégal bi Sénégal moom bu setee danañ am jàmm Sénégal bu setee mel na kon Rwanda danañ am jàmm bu xol yi setee bu jëf yi setee bu acte yi setee bu bu bu bu yéene yi setee lépp ànd set kon set rek mooy mën a dem Sénégal doon lañ ko dalal fii seen site internet préféré set euh, Sénégal 7 point di jaajëfal bu baax baax nos amis internautes ñi nga xam ñoo ñuy seetaan à travers euh, le monde plus particulièrement ñi nga xam ne ñooy waa diaspora ak ñi nga xam ñoo nekk au niveau national di jaajëfal bu baax a baax sama caméraman Ibrahima Ba ak toute l'équipe équipe euh, de Sénégal 7 point com di leen jox rendez-vous ci beneen numéro beneen vibe à plus.